li ci yéenekaay yi li ci yéenekaay yi El Hadji ak kan moo leen di àtte gi ñu xam ne kay mel na ne du yomb gannaaw nag kàddu yi nga xam yëkkati woon na ko jëmale ko ci Barthélémy Dias ci ni nga xam noonu la jëlee ki nga rek moom moo di Guy Marius ak ki nga rek moom moo di capitaine Seydina Omar Touré yi ni gi duñu xamal ne jamono ji ne rek moom moo jiite

lijjanti am bu LD ne nag mbir yi nañu ko jàppee ak ni nga xam ne rek jamono ji ne maanaam artu la docteur Malick Diom ne ko artu gu baax sax ci ñeneen ñi nga xam ne jamono ji ñoo yor ay mairie enquête yéen kaay la xew ca Prodac waaye tamit li nga xam ne rek xew na fi nga xam ne rek moom moo di la poste bi yéen kaay dina xam ne loolee jafe-jafe dëgg la ci lu jëm ci wàllu googe maanaam daal 1300 am ci lu jëm ci wàllu googe ñoom sax ñoo njëkk a fekk jamono jooje yéen gi duñu xamal ne waa Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal seeni mbir fi toll nii dafa mel ni dafa gëll góose wàllu Sénégal ñoom nag nangu nañ ki nga xam ne rek moom moo di alsandoo yi jamono jooje yéen gi duñu xamal ne bu dee nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa Sénélec jamono ji gis nañ seen bopp yéen maanaam daal atum 2015 milliard la amoon ci bénéfice bu dee nag atum am nañ lu toll ci fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards ci jamono joj lii yéen kaay dina xamal ne maanaam daal aji màkka ak ren gi l'observateur yéen kaay duñu yeggee xibaar bu neex nay nag nag jamono ji fonction publique euh, maanaam daal njiitu réew mi Macky na mu leen ko diggee woon def na ko maanaam daal yokk lu jëm ci wàllu ko salaire yi gi duñu xamal lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci ay milliards la ca dugal jamono ji mbir ma door na